maaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu ah saa su ne ñu ngi leen di nuyoo di leen siyaar bu baax a baax a baax ah di leen fekk fi nga xamante ni tey moo di Cambérène tey bu ñu duggee Cambérène yaakaar naa xel yi dina leen ci làmb waaye dina leen ci li nga xamante ni tey moo di aada ak cosaan bu bëri ci réew mi ñu ciy dundee ba tax it tey dañu fee ñëw fekk fi xale boo xamante ne champion la xale boo xamante ne ndaanaan la macha allah bi mu duggee ci làmb ak léegi yàgg na yàggul waaye mi ngi ci wane boppam mi ngi ci def loo xamante ne xëy na làmb bëgg nañ ko ci naw nañ ko ci topp nañ ko ci

waa bitig bi ASC fi nekk yëpp béggee naa leen di béggee sama gaay yi Valdo bu Cambérène Zarko bu Cambérène tam sama booy la ak gaynde gi maa ngi koy béggee bu baax a baax sama waaj mm-hmm. Mm-hmm. waaw serpent waa Cambérène neex la rek waaw ak jàmm la ak salaam man doomu Cambérène laa xam nga fii laa defee sama lépp fii laa nekk Cambérène laa tiitoo laa tiitaroo quoi waaw gëm naa ko lool lool lool lool ca kaw ca kanam rek laay wax ci lu baax yee. Mm-hmm. waaw mbapat def nañ ko de comme mbër yëpp quoi waaw ah, def nañ mbapat wax dëgg neex yàlla xam mbër moom. li tax ñu naa mbër dëgg-dëgg sax mbapat la ndax mbapat moo lay jàng lu bari bari bari si làmb waaw boo nekkee si mbapat rek après boo duggee arène maanaam doo réer quoi di nga am repère bu baax a baax xool fi ngay teg sa tànk ndax mbapat dafa baax ci mbër dafa baax ci mbër bu baax baax. Mhm. waaw yee loolu c'est normal ndax Cambérène laa dëkk xam nga fii ay borom jom ñoo fi nekk xam boo nekkee say moroom ñu am fula am jom am ngor xam nekk si li ñu war nekk. yow tamit booy xool ci ñoom rek maanaam doo dëngal quoi si lépp loo nekk rek dañ si dem ba jeex eh, man loolu laa gëm quoi lépp lu ma nekk rek du ma ko coof damay dugg ba mu jeex waaw ah, lu ma ci am nag jël. mm waaw ah, yee ñooñ samay mag samay ganaar ñoom ñoo ma jiitu si làmb ji sa foofu man le 20 avril 2015 laa bëri sama premier combat xam loolu yàggul ñooñ samay mag la maa ngi nuyu au di nuyu Yanda depuis États-Unis di ko nuyu bu baax a baax baax baax di ko ñaanal yàlla jàmm salaam di ko wax nii lépp lu may defal daal maa koy gis waaw combat sama combat bi nii xaalis bari bëri la ma yónnee te dara xewagul waaw kooku sama mag la sama grand la. sama idole la sama lépp la lu bari lu nekk ci man moom moo ko def quoi eh, dama koy tiitaroo di ko ndooma di ko ñaanal fu mu nekk yàlla na fa am jaamu bu baax a baax a baax a baax waaw nee combat bi nag nee na combat am la nee na combat am mu ko wax bu baax a baax di ko wax ne gën naa ko jox lépp rek waaw moom bu mu ragal dara incha allah ndam li naa ko andil incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw suñu diggante mooy jaam ak salaam ñun lu xam mooy mag day jiitu rakk topp ci eh, ñun amuñu fii concurrent diw la noonu koñ bi noonu la mës demee comme maag samay moroom ñëpp benn lañ ñoo tolloo niveau ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk li ñuy gëm garant yi suñu garant lañ cër lañ leen jox ba mat sëkk lépp lu ñu dugg dañ leen koy wax xam nga ñu xelal ñu si ci koñ bi tamit noonu la demee. fii boo ñëwee boo tuddee Yanda Gora Sogue tudd xam nga Valdo xam man sax xam naa maa maa nekk si ginnaaw daal maa nekk si ginnaaw nañ góorgóorlu rek ñu ñëpp yàlla baax na. <laughs> waaw loolu xam xam nga jël bu rëy moom dalay dab si làmb quoi lu bëri nekkul loo souhaité quoi ah man boog. comme ñëw ma ni incarné force dama lay daan jël bu rëy non non man nu ma la daane baax na su ma soo mënee taxaw ma daw romb la nga daanu sax baax na. waaw loolu leer na <laughs> loolu leer na douze. yee te loolu du benn yoon du ñaar yoon de. Hmm, bari na mën na ay trois ah, mën ay trois quatre. waaw waaw. allo ay Pripdip loolu mooy Pripdip waaw waaw liggéey la loolu yëpp sama gars ñoom ko may Zarko Valdo xam nga ñi ñoo may may doole xam nga te am na lu nekk si ñoom lu bëri loo xam ne xam nga su ma ko exploité rek damay am dara ndax kenn ku ne suñu morom ñun ñooy mayante doole quoi Valdo am na lu mu yor Zarko am na lu mu yor xam kenn ku nekk lu mu yor nag su ma ko gàddoo mbër moo dal sa kaw da ngay maa la ko wax. non mm-hmm. mm-hmm. <laughs> waaw waaw lu wóor man xam li ma la sànq mooy lu ma dugg du ma ko cof ma làmb maa ko bëgg di ko def tere nañ ma ko xam nga lu yàgg sama combat bi passé la sama pa dooro bàyyi may bëre quoi sama la wax bëri naa sept combat te libéré wu ma quoi sa huitième la mu door libéré ñaar ma ne ma demal xam nga loolu yëpp ma nekk si tamit di góorgóorlu paa bi teel moo xam may rayante ba toll fii mu ne ma bàyyi nga dem kenn moo ko yaaxal ndax jum ak fula laa ciy def ak ngor bu mat sëkk waaw man loolu laa gëm quoi gu ma def dara di ko coof dama si dem ba mu jeex man combat ñaak combat am sama gars yi nii dañuy entraîné matin soir waaw di ko teg si yoon naa ma mbër ndoo combat dafa bett man benn yoon laa mos a préparé combat un mois gis des ay 15 jours 20 jours lay yem xam nga loolu boo dul entraîné mënoo ko. yee moo tax ñun suñu xëyee soo ba ngoon jot entraînement la ñuy def gars yi nii dañuy wootante su ma wool Valdo wala Valdo woo ma naa woo Zar wala mu woo ma sëngal fu mu jotee aca ñu ngi si yoon bu ñu xëyee tamit dañuy dem saal noonu la rek mbaru ndaw moom entraînement moo ko yor boo mënul entraîné bàyyil ñun dañuy entraîné quoi teg ci yoon xam ne lu ñu nekk nii affaire ndaw la xam affaire jeunesse la quoi mais tamit foo mi dafa laaj doole. il faut nga am doole même boo amul yenn marché nga am doole bu wér kéng ponkol boo dal ci kawam mu xam ne kii mooy ak dara yee mm-hmm. waaw maa si huit combat am victoire yee deux défaites quoi waaw maa ci ñaan yàlla ndam incha allah Fall Ndiaye moo ko tëgg quoi mais instant nii amagul dara xam naa il foo saison bi tijji ñu. waaw waaw xam nga promoteur yi moom dara dalu leen. waaw Kandji sax moo njëkk si loolu quoi Kandji njëkk si loolu xam nga moom sama mag la moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax tey ji su ma génnee moom moo ma génnee. sama combat yu bëri am moom moo ko tëgg quoi maa koy remercier bu baax a baax a baax promoteur dara dal leen de suñ la tëggee am ñu sew intérêt duñ la tëggaat bul sonn waaw mbooloo bee tax nag macha allah te ñaan yàlla mu yokk quoi eh, loolu dong la. non non pas kase bi yomb sax waaw ah. ah, loolu mooy yoon man doomu dëkk bi laa. xam nga di ñaan yàlla xam nga gars yi gën see jàpp quoi gars yi jàpp bu baax a baax nag mais nañ si gën a jàpp jàpp jàpp jàpp Cambérène xaju si benn stade fii waa Cambérène mu génnee génnee ñu si benn stade fii maa la ko wax te li ñuy gën a dem yàlla gi ñu suturaal nga si gën a xam dara bilaay walaay dinañ débale ko fii mbooloo ba xam ne dee ne ñii fa lañ jógee tax ma Cambérène ñoom dañoo gëm seen bopp ba pare dañoo gëm seen mbër dañuy far dañuy far à 200 pour cent ñoom si lu ñu nekk rek dañuy fës moo tax people boobu bu ñu toppee si ginnaaw nag doo mën a yox yoxi nañ waxante dëgg waaw doo mën a yox yoxi toujours ñoom ñoom rek bu ñu xëyee dañuy xool boo xam ne yaa ngi entraînement wala demoo entraînement si loo nekk xam nga yaa ngi guddee tëdd wala yaa ngi naajee tëdd wala yaa ngi teel tëdd si loo ñoom ñëpp dañ dañ dañ la koy gësul xam nga war dëggal rek jubal leeral wan leen loo xam ne ñoom soo amee combat sa doon woo ñoom ñooy ñëw dinañ xam ne waa ji waaw der la quoi day joxe ba mu jeex te liñ bëgg dañu dañu koy defal waaw man loolu laa gëm quoi te tamit ñu sekk jaamu demalante digalante waaw te ñoom ñëpp doon ay xale comme man ñu ñëpp kenn ku ne jàppee sa moroom quoi ni sa bopp waaw yooyu bi moom loolu dong la. man de waa Cambérène dong laa fi bàyyi ah, waaw waa laa fi bàyyi de. même Valdo mi wala Zarko mii bu ñu fayee cent million dama naan ko eh sama waa ji encaisseel ñu dem bëre bu ñu paree kenn ku nekk ñu nekkaat si jaamu sama la am si kër yu baax yi oto yu baax yi loolu du dara pour moom loolu du dara quoi xam nga ñun ñëpp war nañ mën a bëre ñun ñëpp war nañ mën a bëre ndax affaire yu foo rek ay ay minutes yu ndaw la waaw bu si bu bu jeexee ñooy àndaat nekk si jaamu xam nga leneen mën na nekk quoi mais moom boo si tollee moom. nekk ci waaw ma loolu laa gëm boo si toolee rek nekk ci pour mooy yooyu mënu yàq dara quoi mënu yàq dara ndax da gis ni ma gis ay magar rek ñu bëre waaw te loolu yàqul dara buñ xëyaa xëy xëy xëyee ñooy ànd nekk si jaamu quoi affaire moom noonu la rek waaw foom góor la waaw. waaw war nga saa ah, ah, yaakaar naa ko de. <laughs> mooy mën a may xaalis yee taxama am na yoo xam ne mun na mun ñoom mooy donte mënul nekk ndax dañoo bokk yoon boo xam ne ñooy génnandoo foo foo jaar mu dee ñaar ak ñett sax dinañ daje quoi te foofu boo tolloo rek amul moytu waaw da ngay dem xama ñu dem dem ñuy xaar xaar laa laa mu noonu la Modou Lo Papa Sow bëri fi te te nii nii ñooy ànd nekk ci jàmm quoi xam nga loolu moom garaawul pour man boo garaawul quoi. waaw xam naa ko xam naa ko de su ma xamoon du ma ko jël waaw ah, ndax man dépassé naa foo xam ne damay bëri mbato du ma ko xam quoi ndax tolloon naa ci quoi man bëri naa ay 4 4 xaw ma combat sama adversaire si biir am ñi laa leen gisee yàlla xam na loolu te su ma ñëwee ñëpp danaan ma diw moom kii moom ba sawaay nañ xaar bee mi kii moom mënoo si dara wax dëgg neex yàlla ñoo mooy guy fi filaaw ma wala yow gaañ kii ba nga jël xanaa gisoo ko xam nga supporter yi li ñu rek la ñuy wax gars yi boo paree boo bëree ba pare ngay dal si si si si rumeur yooyu quoi mais suñ ñëwee suñ borom dañuy suturaal lépp lu ñu mën dañ koy def yàlla may ñu ndam eh, léegi tool naa foo xam ne macha allah xam nga koy di nga xam quoi di nga ne diw laay bëril xam naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax. Eh. Mhm. yeah incha allah waaw waaw lépp instant yi sax xam nga yaay ñor daal ñu ngi jàng quoi ñu ngi jàng bu baax a baax xam nga làmb moom kenn mënu ko dajal toujours soo xëyee rek di nga gis loo xam ne xam nekkul ci yow quoi nga dem wuti ji ko li ma la wax rek sama gars yi ku nekk ñoom. di nga mën ci bëri A wala B force da nga koy mën quoi Cambérène fii laa amul benn mbër bu leen dàq bëri billaahi wallaahi dañ koo mën carrément te di ko def man su ma mënul rek tooñ su ma mënul rek tooñ ndax xam rek làmb moom noonu la ko pour àdduna sax laay wax si looy nekk rek dañ ci def fulla ak fayda ba pare jëm si dara làmb su ma si dara yàlla moo ñu tiim barki sëñ Bamba bàyyi naa ko j'ai d'autres choses à faire quoi am naa leneen lu mu mën a def mais su ma si xama rek passé sama temps nii am na lu tax du ay foo nii rek noonu non ko jàppee foo i man jàppe moo foo waaw ah, lu dëgg laa ko jàppee te dinaa si dem ba ngeer te gaa yi gisaguñ dara mhm, li ñuy gën a dem ñuy gën a xam kan mooy Servent incha allah yeah non waaye man commencé gu ma sax yàlla xam na loolu yàlla xam na ne commencé gu ma li naaw ci man yeewagul de Mm-hmm. waaw loolu lay wax ji il faut moom adversaire boo xam ne waaw ñëpp dina xam ne diw am na combat man yooyu damay neex quoi may sawar di wane sama bopp di wane ne man lu ma capable lu mu mën waaw ndax man xaw ma bëre yox yox yu quoi kenn fayaguma cent millions maa ngi koy ñaan yàlla nag mais cent millions deux cent millions kenn fayu ma ko xam nga ay combat six mois la ñuy préparé mbëri mag yi ñooñu ñoo yee bu ñu xam nga di négocier seen

ñaamal dañuy ñaan yàlla rek incha allah ñu génn si biir suñ génnee si bii ñoom ñoom ñëpp waaw nañ xaar de waaw jaan ji jóg na maa la ko wax waaw ah, dangay xaar yee jaañ du sama la ah, day ñëw yow loolu du day yéen a far quoi <laughs> on ensemble Diagne moom mooy loolu sama rax la ama sama rax bu baax la li yëpp ma wax waral n'est-ce sama rax bu baax la ama ku ma bëgg nag ama di ma nemmeeku di xool ci li ma nekk si li ma nekkul sama la wax bu paree xam nga nit loolu moom yombul quoi am sa rax baax waaw yee bu may mu lay bàyyi xel bu baax a baax baax suy wax ak man du wax ak man rax maa ko mag déedéet waxu kilifa lay wax ak man xam na loolu yombul di xool ci loo nekk su ma amee bés da si def cent pour cent da si jàpp lépp di si dugal alalam yee te mënoon na ko du ko def yee wala xam rek mooy loolu mais daal jàmm maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax di ko ñaan yàlla jàmm ak salaam mu dund dund xam lu mu mën ren déwé mu mën lu ko ëpp fu fuuf fuuf maa ngi koy ñaan yàlla li ma wax na sama xol laa ko tibee yee béggee naa ko bu baax a baax a baax di ko ñaan yàlla jàmm di wax ne yàlla na yàlla daal fay xool te xam nga bañ a tas yaakaar daal incha allah. yee yee waaw waaw 5 septembre waaw loolu loolu am na moom loolu am na waaw tey suñu bës la bësub sëñ Bàmba la ñuy ziar xam nga di delloo ziar di wax ni lu ñu fa julli rek ñaan ko yal na yàlla nangu ñaan mu dal ñu ñun ñëpp waaw te la ñaari raxa yee sa ndar waaw 5 septembre ñu ngi koy ñu ngi ziyaare daal xam nga di nuyu sama wasila di ko sant di gërëm muy sëñ euh, sëñ Abdou Karim Mbacke maa ngi ziyaare bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla mu am jàmm ak salaam gudd fan waaw ak wérle di waaw di béggee bépp Baay Faal bépp murit waa la ñun ay murit saadeex lañ ay taalibe sëñ Bàmba lañ loolu foo ko natt weesu na ko foo ko natt rek weesu na ko quoi ndax doo firi quoi comme di nga doon jàmbaar nekk ci xam xam na ni yow li nga nekk yaa ngi ko bëgg yaa ngi koy def quoi mais di nga dem si biir di nga sentir ne am na lu ndaw loo manqué ndax waajur dafa am solo bu baax baax baax baax baax waaw ci doom daal waaw sooy loo dugg rek sa waajur nangu la si xel mu daal nga si demee. loolu foo jaar yoon lay nekk ndax da am seen ñaan quoi xam nga doo tiit doo ragal te ñaan waajur moom foo ko amee rek na sa xel dal boo amee ñaan waajur bul tooñ soo tooñul yàlla bu ñu tim xam ne ne loo ko ñaan da koy maye waaw ndax xam nga bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di di di di jaamu say waajur sekk ak jaamu yàlla yi jaamu sa xol laab non loo bëgg da nga koy am te loo ñaan tamit day nangu yee yàlla moo wax comme waajur yi ñoom buñ kontaanee si yow rek moom day bëgg waaw loolu kon loolu rek doy na misaal quoi mais foog natt moom weesu na quoi weesu na ko waa métti na moo tax xam nga te temps yi daan nekk da ngay bëre daan sax mais comme fii nii bu fi paa bi nekkee booy du ñeme yëngal xam la bu ñëwee gars dañ leen di calmer xam nga ñu dem taliba yëngal foofu mais comme bi passé du tout des mu wàcc waaw ndax da ngay firi yooyu yëpp ñu si daan sóor kenn sóor du ko ci xam ngay génn tamit di dem làmb sa papa ñëw ñaanal la xam nga bi ñëw ñaanal la loolu leneen la bilaay mënoo comprendre sax leneen la li maa nuyu di bu baax a baax di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam di wax yàlla yàlla guddal seen fan bu baax a baax a baax baax xam nga bu ñu fekkee suñu njëriñ ñun njaboot gi yëpp waaye. daanaan fii début ah. waaw waaw waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax baax hmm? maa ngi bëggee sama benn booy bu nekk bàmmi loolu ji bi mu fi woon sax temps la ñibbi mooy toogal ci mu kaay quoi sama booy bu baax la ci man maa ngi bëggee bu baax a baax xam di bëggee libaas. kiriku <laughs> sama zimo loo quoi maa ngi koy moom du ma wax dara ndax xam nga lu ma ko wax sama bopp laa ko wax am di moom moo yor sama lépp xam nga di si guddeeg bëccëg xam sama lépp daal ci moom la ñooñu du ma leen sant du ma leen gërëm si ma lañ bokk muy Baye Fall yu Ibra Fall xam nga di nuyu Koli Bitik di nuyu ñoom Assane ñoom ñëpp gars yi ñoom Cheikh Mbaye xam nga di nuyu Amadou Ayna kooku moom moo dalal baa si làmb dal bi ñu dëkk ñu jàkkaal fa la dëkk quoi maa yaa dégg di nuyu am sam bu kii sam booy la moo yor sama lépp booy bi am yaay moom moom mooy loolu dafa xër ci man quoi moo tax mooy sam bopp laa boole mun moo ci moom lu bari tama ngi nii kii sama doom la quoi yee yow loolu yàlla def na ko ñu koy ñaanal yàlla jàmm ak salaam xam nga di nuyu yandaa bu baax a baax a baax a baax di ko sant di gërëm ñoom soog ñëpp maa leen di béggee di ñaan yàlla jàmm Zarko Valdo ngi nii xam nga sama doom yaay la sasu nekk ak Valdo yee may ñaanal yàlla yàlla may leen combat balaa yàgg suñu borom may leen ndam incha allah di nuyu Adama sama mag la Adams kii tamit day def lu bari bari bari bari bari ci man sama mag la xoolu dara si man xam moom day def yàlla tax daal moom combat moom ñàkk ko combat moom tamit daf may nemmeeku di ma wax loo xam ne man daf may dépassé sax xam day damay xam ne ni kii xam mu ngi mooy bàyyi xel quoi moom di ko ñaan yàlla jàmm baax a baax di nuyu ndey naan sama mag xam xaadim ay nuyu di nuyu Babacar sama grand frère la xam moom tamit mention spéciale maa ngi koy bégge baax a baax Thierno sama coach lu nuyu xama nga gaa yëpp daal di nuyu Pape Diagne sama mag ak Pa sama Zimo Mbène sama jabar yu ne si kër gi ñoom ñëpp maa leen nuyu baax a baax xam nga gis naa toppatoo bi waaw ah, ma célibataire daa métti quoi gàll ma ko see si célibataire <laughs> moo tax nam ma dara quoi ku nekk da indi li nga am xam nga ñu dal jàmm waaw ah, Pape li mu yeew non léegi mu yeew mu ngi waxaale <laughs> xam nga di bëgg waa Cambérène bu baax a baax a baax baax nag waaw di may nuyu waa Touba tamit ma tudd moo sax mère Ndiaye mu ngi tuubaa mu koy ñaanal yàlla yàlla xare àjjana suuf Touba woyof si kawam daal waaw ñu ñu koy bàyyi xel bu baax a baax di wax njabootam xam nañ am xolu muñ daal mère bu baax la woon. mais ñu koy ñaanal yàlla jàmm rek fi mu tëdd gën ko fuuf fuuf fuuf fi mu nekk nii waaw bégg naa ñëpp daal bégg sama waa koñ ñëpp di wax waa Cambérène nag am naa combat ma gars yi yëg nañ ko sax mais euh, fas lu mu daw daw moom laa bëri du ko yàq waaw Sénégal bës ngi fii la leer waaw amul luy lëndëm incha allah maa leen di yàlla jàmm ak salaam xam dund gudd fan wér ak wérle di leen wax ni kontaan naa si ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di leen wax ni nañ gën a génn. génn bi kontaan naa si lool mais nañ gën a génn xam ne ne am nañ doom yoo xam ne du ma am na doom de mais am nañ doom yoo xam ne gëm nañ seen bopp te si lu liñ nekk ñu ngi siy bay seen waar waaw te fu ñu jëm ñun Cambérène lañ dëkk dëkkuñu feneen fii lañ dëkk fii lañ am xam ñu ñuy béggee waa Cambérène ñëpp ñëpp di leen wax ne leen nii na ñëpp génn daal jàppale seen doom xam nga incha allah rabi suñu borom jàppale ñu lu ñu bëgg ñu am ko incha allah rabi yee béggee naa ñëpp nag di béggee Papa Sow waaw Sow maa ngi ak musaa Dioum xam nga ñooñu ñoom mooy loolu quoi dañoo baax si ñun xam nga cër lañ leen jox ñoom tam ñu delloo ñu ko di ñu conseillé bu baax a baax a baax Coly Bitik bëgg naa ko di bëgg sama gaa yëpp waa xeer ba Etienne <laughs> xam nga Demba ñoom Kaara Mbaye xam nga ñoom Moussa Garan maa leen di bëggee bu baax a baax ñoom see waaw xuraa mooy yor sama kii fan si club bi quoi mooy président bi booy daal bëgg naa leen ku lim da ngay wala doo matal quoi mais gaa naa leen. di wax ni forever girl forever yeah kam euh, serpent ngi nii seen doom la ñaanal leen ko incha allah combat bii mu jëm suñu borom kàttanal ko may ko ndam bu baax a baax te su bu desee si man rek incha allah ndam li dina ñëw ndax amul ragal na woon foon rek ñun ay seconde rek waaw maa la ko wax.